mbokk yi jaa ngeen jëf ñu ngi fii nag euh, ci Thiaroye chez la lion de Thiaroye ah, ah waa gëm sa bopp ñu ngi toog waa Thiaroye gi yëpp ngi toog rakk yeeg mag yeeg xale yeeg jigéen ñeeg maire yeeg tout tànk yeeg ñëpp ngi fi parce que bàyyi ma ñoon mooy mooy xaritu waa Thiaroye quoi xaritu waa Thiaroye la bu jugee ñëpp ay jóg. maa ngi ak Diaz euh, Diaz euh, bàyyi ma rakku rakku ma ñoon la tuddee yow la moo tax nga nekk rek bu bàyyi ma ñoon ba pare. ngay bëri tuddee sa bopp Baye Mandione junior pour lan loolu. waaw man xam nga loolu temps jamonoy mbapat la. non sa bopp keneen baay Baye grand frère. tuddee ma sama bopp Baye Mandione ba léegi nit ñi ñoo xool gis style bi rek tur boobu commencé waaw. ngeen muy sa mag mais mënoon nga tudd keneen sax Xaadim Ndiaye junior wala xawma ma lan Kolifay junior Kolifay 3. waaw ñoo ñëpp suñuy grand lañ. wala Moustapha Gueye 3. waaw ñoo ñëpp suñuy grand loolu lépp naa ne xam nga. turu Baye Mandione moo gën a dal xam nga tam mu doon. yow yaa bëgg grand rek moo tax nga nangu loolu. yaa ko bëgg rek aw ma si sago Ndiol aw ma si moom sago ndax man moo tax ma xam lan mooy euh, cëru grand frère. moo la ëpp la gën a xaw ma lan raw sago amul sago si yow parce que booy bëri sax day jooy day jooy rek. barke alxuraan li mu mel noonu si man lu ko raw laa mel si moom vraiment ku baax la barke alxuraan waxuma la moom Zarko rek dama koy ñaanal li des sa carrière muy ay ndam ndax mag ju baax la man namuma dara ndax Baye Mandione bu jëlee avance am billaahi wallaahi li ma ji jox sax mooy loolu du ma ko fay sax si làmb. billaahi wallaahi nit ku baax la. dañ koy ñaax lu bari ñëpp lay jox. fii caare amul ku lekkul xaalis bu bàyyi ma ñoon man jox joxuma waaw mais xam nga yow moom joxuma moom man moom joxuma yow yaa nga laaj mais boo ko laajee mu jox la boo ko dara daf ma war a ziar moom moo ma war a ziar billaahi xam na li may wax yàlla baax na mais dañ koy ñaanal mu am si kaw Zarko jël bu gaaw bu sedd mu doon li gën si moom mais làmb ji nee ñaari mbër yu am xadar ñaari mën yu mën a def ambiance ñaari mbër yu mën yu yu yu mën xeex lamb ji lan mooy clé bi. làmb ji képp kuy wur xadar ak ay ambiance yi bàyyi ma ñun nga koy gisee waaw comme ay Zarko yi jaruñoo wax wax la am si combat bi nañu ñaan yàlla yàlla moom ndam mu may ko baay ma ñoon est ce xadar bi tey war ko waaj comme ni mu def bii passé ñu gisoon bàyyi ma ñoon bu daloon. non bi passé indiwul uh, xadar moo gàmmee bi. dafa dal waaw ah, dafa boobe ñëw. mais dal que laajul waat tey mu indiwaat boobu. lay gën a dal allah dañuy daan gan gi si kattanu yàlla. dañ koy daan nii ñu gëm la waaw waxi rakk la de. waaw waxi rakk la mais Asi. Ah, daan nay daan lamb ji damay daan. vaar am na. am na am na waaw. ragaloo ma nga may ragal dem vaar ay wax laa la wax nii ay wax laala la wax. incha allah ñoo ngi koy am na fu mu teg. voilà waaw li may wax ni da fu wóor fu ma ko teg. si cadre entraînement liggéey. combat bi fonk ko trop. ko taxaw na de na fii dem na Europe entraîné. bàyyi ma ñun mi dem entraînement fajar sax du ma ko si koo xam ne ma nga daan yee mais dina dem ba ñëw man may doog yeew am na fu mu teg combat am na lu mu bëgg wax na ko si biir wax paa bi nekkatu fi maire bi nekkatu fi lu bëri moo ko yor si gàlle bi kon caaxaan waru ko ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam. kee dem na Europe entraîné kee ma gis ne Zarko bee ma gis. affaire bi du ay neli ab ab ab domino. du ay neli ab domino affaire bi du loolu de. waaw ah, ay ndel bi ceene a de. ndel bi dafa taxaw. nekkul ay tuñ ah, nekkul ay ñàngal de <laughs> yàlla baax na li si kanam raw bët dañ koy ñaanal rek yàlla may ko ndax caaray yaakaar nañ ko si moom waaw. grand naka waaye sant Serigne Touba tey bëgg maam Thierno Mbir. moo defar oh, yi ma gis moom naaj la kon yow encaissé nga. non <laughs> wu. ma gratuitement. non affaire yi dañ koy dañ ciy jàpp rek moom lañ am nit ki nit ki yow liggéey bi ngay liggéey ci nga mën a jàppale. moom borom baax la daf ko jàpp. non kii moom mooy loolu quoi njoon moom mooy njoon ba man mii su may wax ak moom sax day sëgg. mën na maa jur mais su may wax ak moom day sëgg rakam lay àndal comprendre li ñu koy ñaanal mooy ndam rek. combat bi amoo ci xel ñaar tiitoo amoo ci benn xel ñaar man damay dem géej fajar gi su ma demee entraîné bay turne man man dama koy ñee sax ba ba kii dama koy woo téléphone naan waaye yow lan lan moo tax njoon bu ñëw entraînement géej yow doo ñëw mun a mun a mun a ma njoon fan fan la demoon may ko waaye njoon chaque jour maa ngi koy gis géej barki borom daaro yàlla na ko yàlla may ndam rek ñu dem si jàmm ñëw si jàmm indi ndam grand na nga def. yaa ngi si jàmm. xam naa doole. waaw li nga Zarko yow. waaw. Zarko taxaw de. waaw ah, ba sama doomu joon ñu ngi koy ñaanal am ndam lu sedd barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa t-shirt nice la ah baaw Ndiop moom daa baax parce lu baax la da war a am yaayam daa baax papaam baax. Hmm. te moom te daa war am dam bu baax a baax a baax barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi a mais Zarko tamit daa baax de. Zarko baax na trop yàlla ñu baax lay boole. yal na yàlla defal jàmm rek ñu ku am si barke Seydina Muhammad man waa sama xol moo fees. yow daal baabu daa supporté yàlla na ko dóor mu daanu. dóor mu daan men. waaw ku soxor nga. yow borom baax ñoom ñaar borom baax lañ nga bëgg mu dóor ko mu wàcc. non moo gën a gaaw. non nañ jàppante rek bëri ay 15 minutes yooyu. 15 minutes waaw mais combat bi du yàgg nag. du yàgg du yàgg waaw. loolu nga gis yow lu laa gis waaw. ay ñaata minutes yooyu booy. sans départ 20 minutes wala 25 minutes rek. ah nga ne du yàgg. du yàgg waaw du yàgg parce que Baba Ndiol génnagul dellu ginnaaw la. Baba Ndiol ginnaaw la. waaw nga tiit de. non tiituñu tiituñu fii leen fanaan ba bët set tiituñu. man sama xel dafa yàgg dal. barki Seydina mo xalaatoo Zarko non non xalaatun Zarko leneen la ñuy xalaat xalaatun Zarko barki yaa ngi fii nii yow une heure a jotagum nga naan beneen laay xalaat leneen laay xalaat non si mosuma àndax bàyyi ma njoon di tiit si àddina mosul am ànd ak borom fit doo mos a loolu moom am na moo loolu moom man sax du ma tiit man dañuy ñaan yàlla may ka ndam rek waaw ñaari mbër yu am xadar ah tey gëm naa ne su teeloo mën na daan Zarko bu teeyee daan dóor ko. dana am dina xeex moom moom ku ne da nga ñam. mënul ñàkk barki Seydina Mohamed mënul ñàkk. kawoo mënu cee xew. kawoo mënu cee xew. kawoo buy kawoo dem dóor ko laa xalaat mu kawoo. no dóor ko mënu kawoo bàyyi ma njool. waaw man damay ñaan yàlla mu teeye rek bu teeyee jox waa caare li ñu bëgg incha allahu rabbi. dem leen géej. waaw ñun dem ñu géej jéeg na lamb ji lañ bëgg a dem. géej ay ngan di jën génn. non instant bii nii bàyyi ma moo taxaw hmm. waaw jën yi dañuy xaar. incha allah waaw fi mu ne nii moom fas yéenee dem rek defal Zarko bagage xam nañ ne li woote du ko def quoi. jàpp ko mais doom doomu Grand Yoff ngay waxal de. non instant bi du ko li ma la wax moom loxo yi du jóg te du dóor xam naa du xeex mënul xeex. non la question téye sax dañoo xam suñu mbër rek te moom xam na ko bu baax. te hmm. yàgg na ko bàyyi xel. Ah, lépp jàmm tawfeex. tey sa grand moo ay de. waaw sunu grand moo ci combat ñëw di ko assister. waaw c'est normal. parce que moom ñun lu nekk si ñun bu ñu demee ba bëgg làmb yàlla moom moo tax danaan dem topp si ginnaaw nekk xale bu ndax ba combat bi passé ñoo mujjee ànd waaw. décortiquer ma combat bi ñaar ñu am xadar ñaar ñu bëgg xeex ñaar ñoo xam dañu nekk ci yoonu làmb lan nga ma koy décortiquer tey normalement ku ci nekk lan moo la war. ñoom ñaar ku ci nekk la moo la war baam ñoom li nga war mooy dal taxaw wàcc ay tànkam léewaat ak Zarko léetoo bu diib di xeex moom góos di ko coxaas góos balaa koy dóor pour man da ko war a ba pare. dafa war a jàpp loxo gauche am ba mu dëgër rocci droit am soo ko xeex moom. dafa laaj lecture quoi. li muy wax gëmu ko ba bataare mais du bëri loolu du xeex ak bàyyi ñoom. daa war a ñëw daa nar a ñëw jaar si flanc bi la ñëwee. dafa bëgg a fiir quoi. daa dafa bëgg a fiir dafa du fa toog même bu ko fiir dafa bëgg ñëw jàll pour dem si flanc bi la bëgg ñëw bëree. bëri xam na loolu. Zarko lépp bëri mbëkk la yaa xam na ko day mbëkk rek dem. bëri amul buuxante la. dégg naa Zarko changé ndox du bàyyi yoonam moom mbëkkante buuxante bëri yooyu man te loolu lay def bi dina non laamu ji man non seen combat man da ñàkk moom ñoom ñaar dañoo xiifante arbitre bu ne prix moom Zarko du ñëw moom day taxaw. ku ci nekk lan la la war a may ku mel ni ki Baye Mandione. ah lan la koy combat bi di non combat jël day jëlaat place am day taxawaat fu mu nekkoon si laamu day bëri pongale. Zarko Zarko dem bu naa daan day ñëwaat place am la ak placement. examen la ñoom ñaar ku nekk da nga war a kenn moo war a jàll kenn toog mais ki jàll yàlla nekk ñun. taxaw nga nag macha allah. waaw ma dafa am nga problème de. lu leer problème <laughs> yow yow fa réew. Eh, buur kaay buur. maa ngi fi. ay ma defar sama bopp bi. non non garaawul lamb la. yaa ngi nekk ci liggéey. yaa lan. li doxal fooy la doxal fooy. doxal mais alors lan ci biir. ci biir. lu ñuy ci biir comme nekk nii. caañ laa nekk damay dem séddale jaañ nii. joxe nañ waaw conseil nañ ko ba pare mbër conseil naa depuis di bërki démb. ma ne ko mu dal teey xaar ko rek comme Zarko moom moo yoree wax ji na dal rek xaar ko ba mu ñëw. napp leen nga naan moo napp ñu leen yóbbu seen fit bi ñun ñuy ay lébu man rek man Zarko rek mën naa koo daan man rek déggoo ma de. déggoo ma de. mosuma laa dégg. danga bu baax. may la Zarko rek laa man mën naa koo daan. mbot wala. kan Zarko ma koy caxabal déggoo ma de. dal teey xam nga xool nekk ci ginnaawam waaw te gëm na ni liñ ko conseillé loolu lay def parce que dafa bokk ci làmb ji ñoon kenn ëppalewu ko ci làmb ji dafa war a dellu si waat ci làmb téye làmb ci loxoom parce que ñu ko téye gënuñu ko daal te ñu ko tam gënu gënuñu koo nekk xale ñoon xale bu tuuti la dafa teel a bëre xam nga ñun daal ñu ngi ñaan yàlla ndam bi ñëw caaroy man su ma sañoon du xeex dama bëgg ñoon indi bëre indi mbapat waaw. yow Zarko du dara wala xamoo Zarko yéen Zarko du dara Zarko abiyaas la de aka maa xam Zarko Zarko du dara moom seku lay reeree moo tax il faut mu féete woo wax xeeb ma Zarko mais nit booy bëre danga koy jox cër xam nga li ma moom même bu dee benn fan sax bu fekkee njoon Zarko sax njoon magu ko ndax Zarko xam naa daa def jugement magum jëmm la Zarko magum jëmm la jugement la nit booy bëreew da nga koy jox cër jox ko respect xam nga mais noo bëree nit ki pare da nga bëgg a bëree nit ki mu lay mbay xaalis ñeen di mbayante xaalis pare tegoo ko fen loolu amul fen ah, defaree añ bi yow da nga mën tooñ waaw laay man toggaloog laa man rek ak mën a togg maa yaay Coly Faye Coly Faye mi maa yaayam waaw maa ko nàmpal ñëwal añ boo bëgg mbaxal wala ceeb mbaxal wala ceeb may ga maa ngi ñëw indi lañ Senego TV maa ngi leen di ziar maa ngi leen di nuyu bu baax a baax santaat chebre rek tey rek dal réew mépp loolu lañ wax na tey dal rek waaw lu sawaa indi rek mu wan ko loo indi maa la ko pële loolu kese la amul leneen ziar naa de ñu ziar na dama leen di këf nii rek parce su ma leen waxee su leen waxee waaj leen da ngay sol mbaxana bi te man ni moom a gënal waaw ñu sant yàlla rek sant yàlla waaw di préparer bis bi waaw ah bis bi préparé nañ lépp waaw di ñaan yàlla dem jàpp sa waay daan ko jëlal leer nañ mu laaj bis bi ci biir la laaj si géew bi yow xam nga nu mu demee ndax man ka man mii man damay dugg si biir géew bay xam géew nu muy demee ñun instant yi pare nañ lépp instant yi dañuy ñaan yàlla dem si waaw jàpp sa waay daan ko jëlal leer nañ waaw loolu la daan am ci combat bi quoi. ndax avant bi lu mu laaj. a ah, lu mu laaj. du ma ko daan ka rek na instant yii liggéey na lu war a liggéey ba pare moom. liggéey na war a liggéey ndax instant yii Zarko mbërëm waxkat mbërëm waxkat la lamba ñu wax na ko na instant ñun moom dañuy toog di xaar rek. comme comme napp leen ci faala faala nga wax. loolu muy wax yëpp du ko jëfe. seen fit yéen wax yëpp du ko leen. ñun maanaam instant bi maanaam ñun def nañ li war yëpp instant bu ñu sañoon si fi ñu toog ni fi ñu toog nii dañ koy leeral pare nañ pare nañ daal nan baa nan baa bu jour ba rek nan baa bu ba rek essence waaw ngoon la fen yàggadul ñu dem grand char nañ da tiit man man jege moo fu ñuy ragalee sax man jege moo fu ñuy ragalee déggoo ma ah, kuy kuy jege bàyyi mu ñun moom waroo ragal waroo tiit waroo ragal ñun gars yi xamuloo sëkk ñoom instant bi nii ñoom li ñu wax nañ ko jëfee ñoom li ñu wax si làmb ji ñun dañ si fekki sa pare andi leen suñu manin ñun ñu caare lañ dëkk de Grand Yoff la dëkk de. moom Grand Yoff la dëkk. Lion de Grand Yoff. Thiaroye moo jur Grand Yoff. en tout cas daal moom nar na gis ngee wax ak li ñu waaj. lamb ji laa lay wax. dañuy sang ba set xeeñ lu neex. dem lamb ja yaa ngi dégg dar njoon si biir géew bi ba mu dëgër dóor ba mu wàcc. dóor ba mu wàcc nga dóor ba mu wàcc. est-ce que xawoo xaw a sori. nga téye ko nii dóor moom waay. damaa xam koo ngay wax damaa xam ku ma nekkal. saa yi Zarko liggéeyul. Ah, Zarko liggéey bi dem Europe liggéey. dañu ngeen face à face maa ngi signature ba. liggéey la jógee liggéey nga naan liggéeyul. saa waay Zarko liggéeyul. yow bopp bi ni mu jàppee ceene bi ceene bi. mbër bu ceene dëgg ndel bi ngay xool. saa waay kii yow six heures di entraînement ba midi. yaa ngi dégg nga ñëw dem salle liggéey musculation. saa waay kon nga xam ne kon Zarko su ma la nee liggéeyul ëpp na combat bi mu si daj di wax nit moom xam na ñun xam nañ ay wax fu mu toll nii wax jeex na xam la moo des jëf te incha allah dañuy jëf. ba leen ndam bu am importance si ñoom ñaar ñëpp mais ci kii tamit. si njoon man sama xel dafa dal si combat bi parce que Zarko lu mu wax bu ko appliqué incha allah du yàgg. ki mooy magu baay dëgg la maa ngi ci bi de. maa ngi ci añ bi moo wax sa rak. xanaa di ko ñaanal rek mu dal rek tey rek. yàlla may ka ndam sedd guy lu gaaw. làmbaa tërëdi rek yow xam nga li ma la wax waaye Zarko yàlla du yàlla nit kese la. champion la champion la waaye Baye Mandione mi champion la. Ndione champion moo ko tax a toog fii di bëree ba tey caaree kañ nga fi dégg ku dul Ndione ak Reug Reug ñoom la fi yàlla teg yàlla na ko yàlla may ndam lu seddu guy dara jee Seydina xam mbaxal lañ togg. ak ceeb. jox ah, nga bëgg. waaw na ma kontaan gars yi confiance plein quoi jóge ba grand mbaaw ñëw fii mu yàgg nekk sama waay bi mu bëri mbapat ma koy caaneel mbaaw fu na topp naa ko fa lu leer laa lay wax moom ama neex ñu nekk mbër ma nekk footballeur dañ ma yar quoi noonu la demee nag te yow dama la sopp lu yàgg sa voix moo moo exceptionnel a Alaaji Malick ku la naw laa billaay loolu dafa yàgg ah nekkoon seen TV waaw noonu la demee walla ku la estimé laa nag quoi di ñaan suñu borom defal ñun ndam rek quoi bon ma yëgal léegi vraiment na ne ko carrément ndànk rek dal xam nga sóob ak moom nii affaire yooyu noonu incha allah xam nga borom fit moom amul loo koy yokk noonu la demee à base la ko am lu nekk ci moom la ndam rek lay ñaan incha allah.